fi l ali wa sahbi man wala wa zakki lubbi waftahan rabbi liya fatahan mubinan la ilaha li misliya wa jaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen jaar bu wér a wér a wér te di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bis bu aljuma di ñaan borom bi subhaanahu wa taala dëpp la ñëw ko ay ngërëmam bu ko defee comme niñ ñu ko daan defee saa su nekk rek ñëw ci ay leeral yu jëm ci euh, salaatu ala nabi yoo xam ne sëriñ bi daf ko tënk ci xasidaam gu tedd gi mu tuddee ko muqaddamatul xidma fi salaatu ala nabi rahma aw miftaaxu saadati fi salaatu ala xayri saada bu ko defee dañuy daal ñëw ci maanaam salaatu yi nga xam ni euh, sëñ Gueye dugal na ko bu ko defee sëñ bi day wax ni allahuma yow sunu borom salli na nga dolli xéewal ala a sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xayril anbiya ku ñu dey kay ngeen gi képp ku ñu dey xam-xam moo xam ñu yónni la moo xam ñu bañ naa yónni moo la gën wasalaam na nga dolli ak mucc alayhi ci moom wa ala ak ñoñame ma def bi jaahihi ci daraje yenente bi alayhi salatu wasalaam indaka fa yow yow suñu borom min axyaaril awliyaai ma bokk ci tànnee fi wàlli wi suñu nag ma def ci dara ci ndusaasam daal ma doon koo xam ni damay bokk ci tànnee fi wàlli wi maam ñëpp ay wàllu lañ waaye am na ci ñoo xam yàlla moo leen tànnal boppam suñ tubaab a ñaan suñu borom na ni ko nag ma def ci dara ci ndusaasam naa bokk ci ñooñee allahumma yow suñu borom sari na nga dolli xewal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xayril bariyati kay ngën gi mindeef ki nga xam ne lépp lu yàlla bind moo ci gën moo tax ba dama ci xasida euh, matlul fawzayni day wax ni muhammadun xayri xalqillaahi bila taraddud wala istibaahi nee na muhammad salaa sallam mooy ngën gi mbindeef lépp lu suñu borom bind moo ci gën taw nee wax jooju amul lenn luñ ci déng-déngal wala leen leen luñ ci sikki sàkka wasalam nanga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa sahbi ak saabaami wajaal defal axlaaqi samay jikko bi jaahi daraja Yonent bi sallam indaka fa yow mardiya muy muy lu ñu gërëm lu na nga def sama samay samay jikko yow sunu borom daf ko mu doon jikko yu ñu gërëm lu ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma yow sunu borom sali na ma jëla xewal ala sayyidina sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xayri xalqillaahi kay ngën gi mbindeef yàlla kay ngën gi mbindeef ci sunu borom subhanahu wa wasallam na nga dolli mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa sahbi ak sahabaame mu ne ko wa axrijnii nag ma génne fii haazal yawmi ci biir bis bi jaahi ci daraja nabi saa sallam min kulli ma ñeel lépp loo xam ne fii nekk na ca istibaahun ay lënt lënt da ne daal bis ni ki te nag ma génne bis ni ki tey daal nag ma génne ci lépp loo xam ni lënt lënt dajaa dajaa ne allahuma yow sunu borom salli na ma doole xéwal ala sayyidina ca sunu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xayril alamina kay ngën gi mindee fi torra mboolem seen ka nga xam ne mboolem mindee fi sunu borom yëpp moom moo leen gën kooku mooy muhammad ibn abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wasalam na nga doole ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa saabi ak saabaami warzuqni nag ma wërsëgal nag bi jaahi daraja nabi sallallahu alayhi wa sallam fii kulli ma ñeel lépp loo xam ni faaltuhu defoon naa ko wa fi kulli ma ak ñe ak ñeel lépp loo xam ni sa afaalu dinaa ko def sawaaban muy ab tuya maji muy muy tuyaaba wa ajran akub yool hmm. da kon daal nag ma wërsëgale yow yéen yow yow sunu borom nag ma wërsëgale euh, ci mboolem loo xam ni defoon naa ko ak ci lépp loo xam ne maa ngi koy bëgg a def nang ma def saa bu ma ko defee ba noppi daal naa ci am tuyaaba ak yool bu màgg a màgg màgg màgg allahumma yow sunu borom sali na ma doole xewal ala sayyidina ca sunu sang wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay yenent kay muhammad xayrin naasi kay ngën gi nit nit ñi ka gën ci nit ñi xayrin naasi mooy ka gën ci nit ñi wasala na jël ak mucc ali ci moom wa ala alihi ak nga ñamee wa fi nii nag ma fekkal nag bi jaahi ci daraje yonent bi alayhi salaam al iltifaata ak gestu gestu mooy dox bi dox di gestu leneen lu dul lu dul yàlla ak lu ko mënta may ngërëmal yonent bi alayhi salaam wa shakku ak di sikki wa taxayuri ak ngëlëmte wal iltibaasu maanaam ak ak làmbatu nee na yii daal nag ma ci musal yow suñu borom nag ma ci gestu di gestu leneen lu yàlla ak di sikki sàkka wala may mel ni ku ku ku xaw a gëlëm mooy ngëlëmte nag ma ci musal waaye ak ak làmbatu tamit nag ma ci musal mooy lépp loo xam lën lënt da caane daal lënt da caane nag ma musal ci loolu allahumma yow suñu borom sali noo doole xew la xalaa si ñaa ci sunu sang a wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xayri haazil umma kay ngën gi gën gi ci yiila ci giila xeet maanaam ki nga xam ni xeeta yëpp moom moo ci gën waaye xeetam mooy ngën gi xeet waaye moom moo gën ci mboolem xeet yi fu mu sa moom moo ci gën yéen di bi alayhi salaatu wasalaam wasalam na dolla ak mucc alayhi ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa sahbi ak sahabaam wa jaal ni nag ma def nag bi jaahi daraja yéen di bi sallallahu alayhi wasallam kaw ni sama nekk forxatal a'immati may mbégte mboolem xeet yi def ma daal ma doon mbégte mboolem xeet yi fi yàlla yoon yëpp naa doon seen mbégte ñoom ñëpp adduna ak alaxira allahuma yow suñu borom sal na nga doole xewal ala sayyidina kay suñu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad xiiratillaahi kay tànneefab mooy kay tànneefab kay tànneefab suñu borom ba wasalam ak mucc alay ci moom wa ala alihi ak ñoñame wa saabi ak wa ni nag ma def bi fi daare ci adduna ak alaxira bi jaahi ci darajene du saa salama za ismatin may borom mucc wa jaahin ak boromu daraja nag ma def nag ma def daal ma doon ko xam ne kii mucc laa ci lépp lu bon wala ci lépp lu ñaaw wala ci lépp loo xam te ne loraange àdduna alaaxira ca nekk waaye wa jaahin ak ak daraja maanaam nag musal ci bëgg daraja daal allahumma yow suñu borom sare na nga doole xéewal ala suñu sang ba wa mawlana kay suñu kilifa muhammadin kay muhammad al al xayru kay kay aji yiw muhammad mi nga xam te ne mooy yiw te moom jëma boppam jër yiw la wasalaam Muhammadu ak mucc alayhi ci moom ala alihi ak ñooñ ma wa saaba ak saabaam wak fii nii nag ma fegal nag fi ci àdduna ak alaxira bi jaahi jërëjërëm saa sallam bépp loraange dafa daal yow sunu borom di ginnaaw ba nga doolu ak mucc yonent bi alayhi salaatu salaam ak u xeetam ak i saxaabaam nag ma fegal nag àdduna ak alaxira nag ma fegal lépp loo xamante ne loraange da caa nag ma fegal loola ci daraja yi yonent bi alayhi salaatu salaam kon loolu mooy maanaam aju woon ci saatu yi sëñ bi indi woon xam naa ne budd bi ñëw dinañ commencé ci li ñuy tuddee xarfu daal al mooy daal gu ñu neenal daal gu ñu neenal xam naa ni kon dañuy taxawlu foofu rek ñu ñaan suñu borom mu nangu ñu bépp yiw nangu ñu bépp xaraf bu nekk ci biir ci biir téere bi yëpp yàlla ñu ko yàlla may te dëpp la ñoom bépp ngënal bu nekk ci biir téere bi bi jaay Cheikh الدارين بجاهه ذا عصمة وجاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخير وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني في الدارين بجاهه كل ضير